tey bësu àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier atum 2021 ministère bi dënk wérgu yaram askan gi jot na résultat examen birologique yi may waaju li ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett test yi ñu jot a def ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ñoo ci positif maanaam juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar. ñooy cas contact maanaam ñu jasoo jaxasoo woon ak ñi amewoon doomu jàngoro bi amul benn cas importé téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñooy cas issu de la transmission communautaire maanaam ñu jax ñoo xam ne jot nañu feebar bi te xamuñu fu ñu ko jëlee ci ñooñu ñaar fukk juróom-benn lañu nemmeeku ca Thiès fukk juróom-benn ca kawlak fukk ca Wakaam juróom-ñeent ca Rufisque juróom-ñett ca Touba juróom-ñaar ca Ouest Foire juróom-benn ca Yoff juróom ca Tamba ak Tivaouane ñeent ca Dakar Plateau Khombole Liberté 6 Mariste Mbour ak sacré ñett ca Daaru Musti Grand Dakar Kaffrine Kër Massar ak Popenguine ñaar ca Bakel Grand Yoff Guinguinéo HLM 6 Matam Médina Ngaparou Nord Foire Ouagou Niayes Parcelles Assainies Point E Sokone ak Zac Mbao benn ca Amitié Bargny Biscuiterie Cité Alioune Sow Cité Mourtada VDN Diamaguène Diamniadio Fann Fass Mbao Gorée Guédiawaye Gueule Tapée Kanel Kër Mbaye Fall Louga Malika Mamel Mexe Ngexo Ngor Nioro Petit Mbao Pikine Podor Pout Ranérou Richard Toll Saly Sangalkam Saint-Louis Sicap Baobab Sicap Rue 10 Sindia Thiaroye Yeumbeul ak zone B ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ñooñu ñu hospitalisé woon wér nañu ba su tey juróom fukk ak ñett malaat ñoo ngi réanimation juróom-ñeent malade ñàkk nañu seen bakkan ba su démb talaata ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak juróom ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar cas positif ci ñooñu ñaar fukki junni ak benn ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom wér nañu si juróom benn téeméer ak benn ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñetti fukk ci hôpitaux yi